ma ko mën a laaj rek mooy par rapport ak euh, yenn yi nga xam ne euh, dafa ñeel surtout restriction euh, liberté yi tey on annonce des des euh, des changements ci euh, côté police bi ak yooyu côté gendarmerie gis nañ ci aussi certainement ndax euh, c'est de bonnes augures par rapport ak li nga xam ne moom moo mës a nekk revendication wu en tout cas bokk na ci ay ponk yoo xam ne moo taxoon ñu ñoo lànk par rapport à la restriction des libertés ndax loolu yaakaar la boo xam ne mën nañu ne moo ngi juddu à votre niveau. oui en fait ñun on se limite même pas sur cette restriction interne de la police ou bien de la gendarmerie on on on, on plus que ça en fait. parce que am na ay réformes yu bëri yoo xamante ne ce sont des réformes institutionnelles yoo xamante ne le régime en place daan na ko xeex. boole woon na ko ci programme te aussi digg na sénégalais dina ko mettre en place donc ñun aussi on les attend sur ça parce que comme li nga wax léegi rek on a vécu un régime euh, précédent bi nga xamante ne pour la plupart ñu si bëri dund nañ ay restrictions yu fa amoon. notamment sur l'exercice des libertés publiques notamment sur les les privations des libertés avec les longues détentions préventives yi nga xamante ne jàpp nañ ni pour ñu si bëri bu ñu la àtte nañ la ciy bàyyi donc avec l'instauration du juge des libertés bi nga xamante ne ñu ngi koy xaar euh, dafa nekk loo xamante ne c'est un un un espoir lay nekk pour sénégalais yi ñu jàpp ni affaire de liberté restriction dina wàññeeku mais aussi surtout l'exercice des libertés publiques bi nga xamante ne tax na ñoo lànk aujourd'hui euh, taxaw na ci yeneen mouvement yi bëri taxaw nañ ci bëgg manifester ñu bañal la ko ñu gëm nañu actuellement ça ne doit plus être d'actualité